mais réew loolu moom loolu moom ku nekk xam na ne bu amee a ah, len de len dong laa la de <laughs> loolu moom loolu moom ah, liñ la ci mun a mosal mooy du am déedéet du am hmm. loolu moom dama xam ne rek ah, du am man xam naa loolu du am hmm. waaye man amul tëdd di nelaw man fii ma toog laay gisee lu may gis maa ngi dend ak suma bagage yi ñëpp a ngi wax ah doo